ne man daal maay sama gëm sa bopp ba karam may dee dara nag xoolal mën na leen bàyyi gëm sa bopp bàyyi bëri barki yàlla mais pas may delluwaat écurie Thiaroye yàlla tere bu kenn jëm sax man dépasse naa dimension yi ngi ci ren non man du woo ci lekkaat barki yàlla kon daal léegi gëm sa bopp la yam Bakar ak may sàngoo damaa demul ba nekki di man ama gën googu sax Thiaroye ginnaaw raay jéem ak waaye dama fen maay sama gëm sa bopp saison bi pour mu tijji deux mois moo ci des ba léegi combat yi pat benn lay taxawee non day ñëw incha allah lépp day ñëw combat yi na taxaw incha allah na promoteur am xaalis jox mbëri waaw affaire yi incha day baax. ñuy wax xam nga saison loo saison yi ñu gën a wax naan saison bii di ñëw du baax ni mooy ñëw xool ne bam toj. nga xool defoon nañ ko fi daaw. Hmm. ñu naan waaye lamba ji muy sooxe nangam gaaw ñëw toj. waaw bii passé it noonu. xam nga te bii tamit bu soobee yàlla noonu lay demee yàlla yàlla may nañ fekk ñun ñëpp kenn bañ a manqué. ñu ngi dox sa combat. waaw am na ñu dox sama combat nag bu dëgg yàlla. Ah. promoteur yan la yéen dañuy bàyyi làmb wala ay promoteur yu bees waaw fii kenn bàyyi fi làmb gars yi dañuy xam rek moo bëgg a mbëri wàññi seen loxo rek moo tax ñaan day bàyyi làmb mais gars yi bàyyi ñu de xam ñun ñoo bokk business bi xamante suñu biir bu baax mais gars bàyyi ñu bu saison bi tijjee koy bëreel hmm? koy bëreel nee ma sama combat ak diw bëgg ban combat moo mën a relancer Baye Mandione loolu du question ay relancer man tey Baboy bi bëreeg man ndax ba muy bëre boobu ma bëre ma baabooy ma mag fuuf muy bëre bëre ma mm. baabooy nekk naa xale bu ndaw àndaa suma benn gars ñu fekk pont muy entraîné billaahi wallaahi tallaahi li ma wax li bu dul dëgg yàlla na ma yàlla suñu borom yàlla ma fekk guddi ba pour muy leer baabooy sol mooy debee kese woon li ma lay wax nii man may doxantu noonu topp géej gi doxantu muy daw ay cent nii ma fekk fa ma ne xale bu ndaw ma fekk ma taxaw rek ma téye tànk bi def nii téye tànk bi taxaw na i waaye buy dóom sob ko de affaire yooyu quoi ma mu nekk jàngal ma bëre mu téye tànk bi xoolal sama benn xarit bi téye tànk mu taxaw nii ñu téye ñu ne xale yi ndaw téye tànkam muy gësam mu di xam nga borom baax la quoi parcelle la yaa foo dëkkee ñu ne ko ñu caaree a dëkk affaire bi mu ne waaw waaw bu subaa ngeen may bëggee ñu ne ko ne la indil jën noonu après suba ko ñu xëy ñëw fekk ñu ko fa nii xam nga kon sa combat ak moom combat bu neex la non day neex ñaari gaño la amul taw loolu dóorante ba kenn dee rek <laughs> <laughs> loolu day day waar rek bàyyi ma ñoon baaboy non bu amee kay yow xoolal Bombardier ni mu tey te daa yu bëreeg Bombardier bu bëreeg Bombardier daan yar seetlu ko loolu. seetlu ko loolu. dëgg la ah. mais man nag waxuma la anière de gerte nii sax sama waaye non yàlla tere. parce que def loolu bàkkaar la sax mbir muy bëri anière loolu booy dee yàlla dina lakk bàkkaar la baaxul. <laughs> bu dul baaboy pare woo pour may xale yi chance yeneen xale waaye ay yan xale yi man samay moroom lan du ñuy xale man mayu ma fi kenn chance ñu ma fi bëri ñëpp samay morom lan barki yàlla. Hmm. ah yàlla kan laa fi may chance. booy ñaa man nag booy ñaa laa fii mag te ma ko magee li ma ko magee bariwul fii bëri xam war a bàyyi man ndax ñu bëri ngi si xeeb ñun bëri quoi da ngay gis ku judd année bi ñu laaj la nga dem coog wàññi am na mbir yoo xam chaque année ñu ne 22 ans xam chaque année ñu si <laughs> la ñu am wala 22 ans ba léegi ah, xam ngeen xam ngeen baax ñu may <laughs> ah, ba léegi waaw yow njëkk bi dafa bëri de nan bàyyi wàññi kenn ku ne la nga am na ko wax ci ah. mel na Papa Sow laa fi mu joxe atam normal ak Eumeu Sène ak man mii toog mhm. yaa ngi dégg laa fi dégg ñu ko jox seen at normal yaa ngi dégg ak xaaj mbiyaay mbër joxe atam normal ak isaaf yi ñoom mais yeneen bëri ci des génn wàll gét boo ki fëgg micro bi mais nit nit nit la rek tey boo wàññee say at ba ba yaakaar yaa rëy pël ba mag mag bi ñëw mënoo ci dara waaye te terew la mag ken bark yàlla am na kër bër man wax ay kenn nga wax man maa ngi seeneen ah. maa ngi seeneen am nga kër quoi déggoo ma la wax man ma dépassé na affaire kër ñu ngi seeneen instant bii déggoo ma la wax su bët fee leen ko visé pour affaire ay kër ak yéeg noonu dépassé na gars yi kër. Baye après làmbam. dégg nga ma la wax Birame Ndiaye dafa wax solo. Mm. mu ne mbëri nañu boole làmb ak métier. Mm. dégg na mbëri boole làmb ak métier loolu lu am solo la. Mm. il fallait que mbëri làmb ak métier. loolu wér la. yaa ngi dégg man naa sama mbéy ci boo xam ne làmb la mais instant bi exploité ma ko ndax tolloo gu ma fu may tëkkee sama njëmm mais balaa boobu tey ñaan naa yàlla am loo xamante ne tey du ma tikki sama ngëm mu doomu aadama dama gis may dox mooy yërëm non xam ah, nga yow boo nekkee nitu jom am na yoo xam ne da nga koy jom. Mm-hmm. yow ndekete li nga ñuy laaxatu yëpp. Mm-hmm. sa combat ak Boucher taxaw na. kuy Boucher. ah kuy Boucher man ngay laaj Boucher booy bi nga war a bëre. Ah, man de dama kaa xamul. <laughs> mooy booy bi nekkoon écurie Gouye Gui te en ce moment mi ngi États-Unis moo fi bëri woon ak Alaaji Mbaye l'autre jour Bantamba lañ ko wane. Mm-hmm. mu ne Baye Mandione Boucher taxaw na ma ñoon dafa war a tabax këram am problème moo tax mu jël man day korok ba yàlla bindee fen ba léegi korok <laughs> korok laay doon waaw <laughs> d'accord bor eh, teg la may wax la ñuy yàlla bindee fen ba léegi korok laay doo gëm ni fen am na korok laay doo nga xam ni fen fen am na. signature da nit wax lu dul mais tey am na ñu bari ñoo xam naan dëkk tontu comédien la yaa ngi dégg day neexal bës la bëgg dafa bëgg si wala loolu man du ko tontu non non ko. <laughs> combat boobu ñaar eh, lañ la fay. waaye doo bàyyi ne nga xam combat la la la waaye bër baa lay def waaye ban promoteur moom nga ñu may wax du ma wax ñoom yooyu nag. ayca ñëwal yaa ngi dégg. Mhm. kooku ci boppam man man ba léegi arrêté la ba def wax dëgg uh-huh. man seetaan woo toog yàgg ku ñëw Abou Ndour bu yaa ngi seetaan bantamba ma nekk man man maa ngi ci kaw quoi maa ngi ci kaw étage bi naa ataay maa sama gars yi mu ne ma non non jàppal dafa am ay boy boo xam ne sa ma dafa taxaw ma nekk ah mu ne waaw ma daw wàcc rek dugg rek taal jël combat bi taal maytaan nag ndeysaan laa yem boog Lac Rose Lac Rose du tàggoo après mu waat ko ma ne ko non man Lac Rose laa gis télé bi de mu ne ma non man daal abu daa coupé rek commencé appel yi commencé ñi may woowu looy def nii looy def nii xam nga kii na ma am na sama benn fans boo xamante ni yaa ngi dégg post post carré la ne mbooloo loon xeexal ci loolu mbooloo tey bi dee woon tey kooku mooy ni problème te te mu wax day fen fen yu xamante ni kooku kenn xamul lu mu doon mais kooku est-ce que nit la ah. hmm? yow man imagine baa ma doon yor njaboot yor ay doom mm. yaa ngi dégg de mm. am ay mbokk am ñu ko bëgg am ñu ko bañ nga taxaw ci télé bi yow du wax si moom lu ko neex ne dangay ngay wàcce ko tam yaa ngi dégg fekk ni moom mu ngi may defaral yaa ngi dégg tey loolu mu wax tey bu ko waxuloon émission bi du am tey kon bu bu dimanche bi beneen mbër ngay seeti mais doo seeti Baye Mandione. non yow lañ la doon seet si. non dafa naa ko taxawal ma wax la ci télé laay wax. te may wax seede yàlla ma sàq xam na ni mardi bi ma waroon jël Lac Rose. Mhm. yow laa waroon a jël. dëgg la dama laa woo téléphone. Mhm. xaw ma réseau la woon xaw ma. dëgg la dëgg la jotuma la. Abdoulaye Ndiaye mi ngi may seetaan moo ma yónnee sa numéro. waaw dëgg la waaw yàlla bi ma sàq xam na ni mardi bii mhm. passé laa la bëggoon jël actualité bi ñëwaale ba di waaw kay. occasion l'occasion waaw. nga affaire bi nii xoolal man man méttiwu ma de. Mhm. yaa ngi dégg de man mhm. samay nit la metti mhm. billaahi wallaahi tallaahi mais yow kooku man yow xanaa buy bëri ay bëri koo xam. kooku bu dajoon ci beddam man walaa wa ni kii la xaw ma ko barki sëy naa li ma ma yaakaar aduna àllaaxira mu dajoon ci beddam moom man ma xàmmewu man wax ni kii la pour muy leer pour muy bu fekkoon sax man naa ah, ku ma xamante woon la woon wala ku ma minante woon sax bu génnee wax sax mën naa jàpp ne ah sama partenaire la xam naa day far sama doom bàyyi la wala sama doom bàjjen la day far si affaire yooyu quoi hmm. mais dama ma ba kaa xamul mu toog ci télé bi baa ma goon jot naa avance jot naa avance dafa soxla xaalis da day àggali këram yow man ma àggali sama këram ma àggalu sama kër man da cee xam dara yow man ñi ma dëkk sama vie privée xamuñu ko yaa ngi dégg man sama biir dama koy téye sama biir xol yaa ngi dégg mais pas lu may téye taxaw naan maa am lii maa man lii man yàlla bindee ma noonu lu ma mën àdduna ak la ci biir doomu aadama du ko xam du ma ko taxaw def yaa dégg mais tey jii moom mu lu fii lu ñu def pour bëgg si yomb na yaa ngi dégg tey bu nekkoon góor jigéen suba ñu révité presque léegi mu siw na sol benn baa ak benn jumbo aaw rek bu jël billaahi ambar bàyyi na waaye yaa may gaañ yaa ngi <laughs> rek ah. <laughs> non lu may def ba siw dafa yomb ah. moo gën tey nga fekk benn bàyyi ma joon fee parce que gars yi bàyyi seen i mbir nag parce que léegi benn waaye bëgg a coow quoi ne léegi man xool mbër yëpp ne nii noo gars yi daal ñu doonoo naa dem cuxa bàyyi ma joon kooku moo ko cuxee rek na tontu bu tontoo naa am bës mais kii fa mu moo baaxul hmm. cuxe boo xamante ni yow commencement ba fin ay fen la ay fen aboo dam-dam laa ko tuddee dégg nga kooku seen jamono seen Mouhamed la nekkoon moo dax ci yàlla bi aboo dam-dam kooku dégg nga daa mën a fe defare gaaw tàggee gaaw di nga doo ko jàpp mën a daw <laughs> waaw non man ki damaa yëpp man bu ne dafa damaa taxaw naan ndox man ñi nit nit lan doon waxal wala ginne moo doon wax noonu mais kan mooy tëgg sama combat kooku yaa de man dama kaa xam ban promoteur moo am fitu taxaw naan bàyyi ma goon alors waa na nga def sa combat nu mu tudda Boucher sa combat Boucher kan moo ko ñemee këccub xam nga ma addu waaye kii ma wax ko waa ndax balaa ma koy wax woo naa promoteur bi mu ne ma garaawul waxal parce que kook moo ko nangu xam nga bàyyi ma njoon tamit maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko sant na xam nga ñëw na waxtaan naak promoteur dina jaaxal Sénégal ñëpp mais maag Baye Mandione taxaw na. parce que rumeur boobu maa ngi koy dégg nag ko waaw mois de promoteur moo ko taxawal. waaw promoteur bi nee na ma xaar tuuti mois de mars la taxaw na maag moom moo woo promoteur bi ne ko man xaalis laay wër soo ma joxee booy bu am buzz ma bëreeg moom. da nga am buzz promoteur bi ne ko. am naa buzz te mën naa jël xaalis jox ko ko sama grand aadama ne garaawul dinañ ko yokkal ñun dinañ ko jox thirteen thousand dollars you know. suñ ko joxee thirteen thousand dollars mu jël ko boole ko ci këram bi muy tabax xama rek. grand bu jantal la bu am xel. moo tax ñu mën a jël ba te ñu la soxla Sénégal danoo bari. waaw jël na ma léegi war na nañoo bëre ma nag moom te bàyyi ma ñoon ku ne xam na ni dafa neex a daan. mais bi kañ la. combat bi mois de mars daal la ma promoteur bi wax mois de mars incha allahu rabbi. bu sëy bàyyil fen boo bëggee siw na nga solob jubux aw a ab may dafee daan maquillage ah, yaa ngi dégg de déclaré ne góor nga gis. boo defee gars yi bu la révisé presse après di nga siw bu ko defee après di nga am bës bu nganda di nga am bës nga yow am ma nag ma may wax nii mais aw ma sa jot xaw ma la sax waaw hmm. guy gi li nga ma nii moo ci gën a mer ak naan moo jël avance baak yooyu di di di wax dëgg. fekkee nga déggoo ak oo na ma deux fois nga man la affaire bi metti ko trop billaahi wallaahi taala man waxoon du bu subaa ma na mu waa mais yow sama booy bi ñu def mais mbër ñu ngi jéggalu kii kenn ma nekk ma nekk Sénégal gi mu ne na yow de yaa ka wax loolu hmm. li yaa koy wax mu wax da nangam ak nangam ak nangam ma nekk nag moo yow bokkunu yow da ngaa ba am li nga am moom bu bëggee am dara na dem liggéey mais pas muy ñëw xool nit di émiti ngi dégg toog ci télé bi di wax lu dëgg di fen loolu mën naa ñàkk yaa ngi dégg ma mbër depuis trois booy mu may oo jëluma ko sax affaire bi ñun la gën a metti léegi bu subaa naa la oo jox la naas moom tey mi mi ku fonk problème suba su suba ga xool ma jox ma na man gis naa papi boy bi ak yaayam xamal laa seen doom def na nga dem éra bu ñëwal sax na toog foofu noonu xanaa mesure bi mu waxee man guddi googu billaahi wallaahi te ma gars yi tegalee dama kii li ma génnee gàlle bi après maa jubali 100 mètres du ma police jël si ma ndax li ma def dafa metti imagine toog ci tali ma ngoon dafa neex a daan di waaye dafa soxla xaalis fay nañ ko xaw ma lan lan ak lan kooku man lu ma ñàkk ak lu ma lu ma am xamu ko ku dul moom sax xamu ko papaam jurul ku ma gën yaayam jurul ku ma gën yaa ngi dégg dinaa mu jàmbur ko yàq da nga koy jurul man dama du ma naw leen bokkuma ak moom mais état ambassade États-Unis nag léegi ñoo ñoo yàq dëkk bi golo gu jug ñu may la visa non loolu yàq dëkk barki yàlla kalaa <laughs> ñoo may war a xoolaat billaahi wallaahi tallaahi non da war a xool man man wax yow nii xoolal ima mbër ima su ma dagoon bee tey ginnaaw suba ma dem pour muy leer maa suma visa ma dagoon bee tey ginnaaw suba ma dem États-Unis yaa ngi dégg am na yoo xam dafa ñaaw xam nga may gërëm sama doomu ndey Aziz waaw lépp loo xam ne wax naa ko fi mu déranger xam nga ni yaa ngi dégg ñun ay balaa ñuy tàggoo ban ban ban message ngay lancé làmb ji ñëpp ñëpp waaye mais yàlla suñu borom defal ñëpp jàmm ak salaam yaa ngi dégg mbër doon benn ñu waxante dëgg bañ a feerante. <laughs> bañ a sosalante. waaw bañ a sosalante ngeen bëri aba ah yàlla jàppale ñëpp ubbil ñëpp xéewal waaw loolu rek. ubbil ñëpp xéewal tabaski yàlla may ñëpp ay xar ba may ñu ay ay nag sax loolu ay xar ak yooyu. Mm-hmm. xar bu ñaata la bàyyi ma naa daaw xar bu 300000 amul de man dëggoon ma la wax ah noonu waaye ndax am na ñoo xam te yaa ngi yàlla bind na leen te tabaski day ñëw balaa ñoo am xar dañuy sonn mm-hmm. mais ma taxaw fi naan maa jënd xaru nangam ak nangam xam nga mm-hmm. yooyu erreur la quoi. dëgg yàlla erreur la erreur la du ma ko wax. lan ngay lan ngay lan ngay tàggoo yow waa Sénégal ci Bantamba. waaw Bantamba ba pare sa yow Bantamba Modou Mbaye wala Bécaye. non affaire bi yow la. per per per non per per mooy pay yaay des na garaawal. ah per mooy pay. waaw per mooy pay yaay yow. waaw amul problème moom mooy Messi dafa naka doon nga doon pay sax. loolu boo ko defee ñàkk taali waaw yaa ngi dégg yàlla suñu borom jàppale ñëpp. Aziz Camara maa ngi koy sant di ko gërëm yàlla na ko yàlla suñu borom fay. sonn na ci man trop moo soxnaam ay ay doomam ak yëpp ay ay jabaram yàlla nañu yàlla sama borom dooleel yaa dégg di gërëm papi ma àndal tamit xam nga di gërëm waa Thiaroye fàttewuma kenn yaa ngi dégg suma papa maa ngi koy gërëm bu baax yaa ngi dégg maa ngi gërëm suma papa bu wér bu ma jàppale la yàlla na ko yàlla borom defal fan bu gudd ak yaram may gërëm bu baax nday safeetu Guèye do doom sama papa Ablaye Guèye jigéen du mën góor kooku lu la may defal ci àdduna yàlla na ko yàlla fay lu ñuy doom soxna baale ñoom ànd ñëpp sa France yàlla na yàlla sama borom dooleel may nuyu la may may gërëm suma père Babacar Diop sama dëkkandoo la may nuyu wàlla sama dëkkandoo yëpp père Babacar Diop yàlla na ko yàlla fay gis naa taxaw mais yàlla na yàlla suñu boroom fay moo soxnaa ma yëpp man daal kontaan naa ma nuyu Njaxat Njaay tamit kontaan naa xamas ñoom Sambay ñoom gars yëpp daal man daal caaree bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm ñëpp kontaan naa trop ci mission bi képp koo xam li mu woon la da nga xam ni xel matul may nuyu raxan sama gars yi ñoom maam lamp xam nga ñoom góor ñoom ceebaa fàttewuma kenn daal hmm. xam nga képp koo xam ne tudd nga sa tur xamal ni nit matul hmm. sama grand frère Assane ñoom sama papa am ñoom ñëpp maa ngi gërëm ñëpp du sant waa caare di leen gërëm hmm. nit ku nekk boo yeewoo war ngaa ñaanal fa ngay war ngaa gërëm fa nga yeewoo wala nga ñaanal leen may gërëm sumay dëkkandoo ñoom ñëpp yàlla yàlla sama borom fay waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ah dégg ngeen kàddu yooyu moo jógee ci Baye Mandione moom tamit ñu am cawarte bu baax am mbégte toog ak moom waxtaan ak moom ndax boo waxtaanee ak moom dégg ci moom xam ni xol mooy wax xam ni nit nit kese mooy wax ah ñu koy jaajëfal bu baax a baax di leen bëggee bu baax comme ni muy demee saa ne rek li ma leen wax c'est le bantamba c'est le bantamba c'est le meilleur lépp loo xamante ne neex na leen dañ koy indi def ko te fi lañ ko defee woon tey ak la 2STV mbokk yi may bëggee bu baax a baax moo Modou création ndax suma doomu ndey la moo mooma moo ma moo ma moo ma génne fii tey ma koy jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje mardi bii di ñëw ci yeneen bagage ak la 2STV Bruno Papi Karajo dund leen dangaan jaay dégg joor na ci contré doo dem kaw parce que c'est désorganisé fi mu nekk ku ci dañu jeganteeg dafay waa ji dugg na ci gardam gis nga dugg na ci gardam Abdou Diouf sonn na oh là là Abdou bu Abdou Abdou Diouf ka ñuy wax kaw dëbu lii kaw dëbu la mais est-ce que arbitre bi war na atte Omar est-ce que arbitre bi war na atte lii. Ah, c'est-à-dire que boo gisee arbitre bi atte da dafa gis ñi ñu touché ko mu gros gi te bu bu arbitre bi bàyyi woon waa ji bu ñëwee da koy jekkali te kooku mën nañu wax ne bokk na ci non assistance à personne en danger. waaw mais dafa mel sax d'accordul est-ce que mënuñu jege jéem a jege Matar Diop laaj ko laaj ko laaj ko laaj ko. am yoon neexul yëkkati. yaa yaaram jël na ko jël na ko ba jeex tànk sa waaye tànk yaa ngi laal suuf mën na botti mais day daanu def mel na day waaj a daanu parce que fi mu ne ah Abdou Diouf jàmbaar la ndax euh, lii ko ñaaw dugal oh, oh ah, la ñuy wax caxabal ndaxte dama la wax sànq ne day botti waaye booy botti da war a mën a maa ngi nuyu amateur lamb yi di nuyu ñi nga xam ne toog nañ seen kër di ko seetaan

te koy jéem a roy ne leen kaar ne kaar wax loo wuleen dara. non non waa déglu leen. laaj ma deux heures. dama xool ba kay may ba bëgg ma daal di way. di ñaan réew mi roy ko te koy jéem a roy leen kaar mu naan kaar ñu daxal ko dafay doomi ja radit ma abdou dama jamata dana ngeble oh xale fa papa mor lo jàpp la ilaha fu ko jëme na ko oh abdou ngeen rob ko mën ah Lasta Ngeer ndaanaan la dugal na caxabal ba bot la xatar bi la bot la xatar bi la bot la xatar la ëñ la yenu la lan la soo caaxay la ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk am nga noo rëppale sa morom Saali wër na ko ndoom ma dak da koy daan galgal fa xan baat ba ilaha illallah oh mbër feeñ ah. ah. kenn du ko fal koo bëggul kenn du ko fal koo bëggul mbot ma wala galgal ba fu oh Tanko Ndaw daan na Mor Sarr bi jël bu rëy